ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mbokki bolé ci beytu sëñ touba wi nga xamné dafa wax ne uxal bukaawu ala saadaati amwaati tabkil aradi alayhi ka samawaati uxal bukaawu ala saadaati amwaati tabkil araadi alayhim mo yi xew-xew bu tiis te metti te bette jëmm ji ngeen di seen nii nga xam ne ay atam waragut a paas si ñeent fukki at wala bu ko matee du ko ëpp doon kenn ci sëti sëriñ Tuubaa yi sëriñ Sidi Mbàkke mu sëriñ Seexuna Mbàkke mu Seex Abdul Ahad Mbàkke bokk ci sëti sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ci ñaari wàllam yépp di sëtub sëriñ Abdoulah Karam Mbàkke kii moo fi bàyyikoo ko sëriñ Sidi mi bett na lool li daal day tegtale ne àdduna daal ab jaaruwaay la boo xam ne nit ki daf fiy jaar rek li mu fi toog di ko fi def di def mooy toog di xaar kañ la kañ sunu boroom di jël mbakkanam wala kañ la aw fanam di mat wala kañ la ndaam di fees jàpp naa ne rek la lan ko jappé yonent bi alayhi wasallam dafa waxon ne aduna dama man fi ludut dama fe jaar rek melon ni kuy tukki di dox ba ci yag ma tok ci genn garab di noppalu ngir sama ñak féré rek ma jogaat waye wut siwuma fi dara ndi yalla demé na demin gu bette ku am pësif te bëgg sëñ touba te amoon jom lool amoon fulla tamit lim bok ci sëñ touba lepp musu doxé sax né dafa wara doon sëriñ bo xam day tok di laaj wala dañ ko wara jox way foko fekk mi ngay wut di liggéey té liggéey bobu lu mu ci bëggoon moy lu mu joxe addiya ak lu mu yore boppam lu mu sàmmi ngorom ak lu mu sàmmi diineem loolu donc wax dëgg yàlla doonoon ko am ko am ko am mana yalla dogal mu fété won ci dëkk bi fi di liggéey nekk fi liggéey sëñ tubaab bi luy jëmee dëkk sëñ Tuubaa bi kanam guddi ak bëccëg saa boo ko gisee muy dox rek ci lan lay xëy ci koñ boo xamante ni wala ci amunu ndox walla foo xamante noo amee jafe-jafe nu mu cee mën a taxaw ba loola jëkk doon koo xamante ni ak taalibe moom royewu ko fenn lu dul ci kër kër kër ci waajuram bu tedd bi muy sëriñ Seexuna ñu tuddee ko sëriñ Sidi mi nga xam ne mooy xalifab Seex Abdou Lahad mu nekkoon ci wetami tamit di déglu ndigalam guddi ak bëccëgam waajuram tudde ko ko jox ko ko jox ko léppam mu yor responsabilité am léppam ah dama na dem gu bette nag dem gu bette gu bette te tiis ba woykat bi wax naa loo xëjj du tee dee def kan ci sa kër di la wër te loo ko mën a bernde lu du sa rooga du génn sa kër te bu dig ba jotee ba rocc sa roogi mu gën metti juróom ñaar fi yu sar allahu akbar waaye nag ñi nga rafet njortu ci moom bu baax a baax a baax ginnaaw bu ñu defee li ñu yàlla sant ak ab mooy ñaanal ko njëggalal suñu borom suñu borom tàbbal ko àjjanay firdawsi jàpp nañ ne dina wéttali ko ca wetu maamam ju tedd ja muy Cheikh Abdou Lahad Mbacké am nañ ci yaakaar lool lool lool pësteefu sëñ Abdou Lahad beeg jikko jéeg lépp waajuróom tamit am ngërëmal Cheikh Abdou Lahad muy seexu Cheikhouna kon ñu ngi ko koy jaale bu baax a baax a baax a baax di ko jaale sëriñ Seexuna bu baax a baax a baax te yàlla ñaan yàlla tàbbal ko àjjana firdaws te yàlla suñ xol tooy na lool lool lool tooy na lool man waxtu yàlla mi ngi ko déggee sax xabaar bi taxut ma nangu koo gëm sax damaa defe noonu xabaar yi wérut rek ci la bokk waaye wax dëgg yàlla bi ma jokkoog ñi ko jege ñu ne ma la am na de allahu akbar ñu ngi ñaan daal njëggalal sunu borom ñu ngi ko koy ñaanal yàlla na ko sunu borom tàbbal àjjanay si yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla yërëm wutut woon ngir denc sax benn dërëm bu muy wut ngir denc ko la fanaanoo ko amut foo ko fekk lu mu am bokk na ko jullit yi bokk ak taalibe yi waaw fekk ci poos bu xaalisam nga fekk ci xaalis bu bari mu téye ko nii rek di ko kii déedéet lu mu am mi ngi ko bokk ak taalibe yi ak yalla ko yalla tabal aljana firdaus seigne sidi ni ngi koy jale njabot gi ñepp nak ko jaale njabootu ahlu mbak yepp ko jale njabot ñepp rek ak talibé seigne touba yepp rek yo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh هو قلبك على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات